asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi fii ci Koki kër sëriñ Mouhamadou Sakhir lool te daara ji eh, gis ngeen nii nga xamante ne bii ni la xale yi toogee lii toll na ci 4600 et quelques personnes yoo xamante ne bii ci la ñuy waaye itam gis ngeen ko. bu añ jotee itam nii rek la ñuy nekk waajal añ bi te amu ci kenn koy fay ñoom ñëpp dañuy jàng alxuraan di jënd borom bi subhaanahu wa taala tey jii seen mbokk daal bi Fallou Balla Syll ñëwal leen ay kook yi eh, gis ngeen ko booy añ bi noppi na ñu ngi nii ñu ngi nii di tibaati añ nañ bool yaa ngay ci des lii la dongo yoo amee lii la àndal sëñ Fallou Lo mi ngi noonu gis ngeen ko gone yaa ngi àndandoo ci añ bi waajal añ bi gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu dañuy seddale rek wet gun jëm bu ñu noppee jëm ci wet ga ca des sëñ daara yaa ngi noonu daara jaa ngi nii gis fu ne la xale yi jóge di añ si xale yi gis ngeen ndab yaa ngi noonu ñuy doxe ba foofu fees rek ñu jàll fa ca des yaa ngi sukk ñu ngi organisé ñu ngi sukk ñu ngi organisé gis nga ko noonu Serigne Cheikh Diop mu Cheikh Mamadou Mountakha seen nga ko noonu ci biir ci daara ji la jànge mu ngi noonu gis ngeen xale yi macha allah lii liggéeyal lislaam rek la néeg bii moo nekkoon nekk Serigne Mouhamadou Sakhir Lo fii la daan toog daan jàngale alquranul karim gis ngeen ko nii gis ngeen nekk bi rek ci daan jaamu yàlla 1939 la sañcoon fii ci ndigalul Serigne Mahamadou Kabir mbay na ko demal kokki boo demee ngay jàngale alquran ngir yàlla waaye gis ngeen tey jii lim ko jural fii 4600 et quelques personnes ñu ngi fi di jàng ñëpp di jàng ngir jëm yàlla rek ñu leen di jàngal ngir yàlla te benn dërëm sëñ Cheikh Diop sëñ Fallou Lo gis nañ ko noonu doon ay jàmbaar yu ne ci liggéey bi